koo teeñu ko tabaal. ah <laughs> kon tama day faj. maa la wax li <laughs> dama ci ba pare ma xam ba pare ma wax la leen Pape Cheikh. <laughs> Ah. li ma la waxoon xam nga mos nan bokk émission ma ne la mbëtt da nga wax loo. dëgg la waaw muy yonent bi. Mhm. moo tax kii kii fu mu. fu mu ne rek te tama dëru mbëtt lañ lañ ko defaree. moom laa lay wax dama nekkoon dama nekkoon benn télé